Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. salaamaaleykum téléspectateur u Equivox TV mbégte la ñuy am di dalal euh, honorable député Cheikh Abdou Bara Dolly nekk euh, représentant wu bokk gis-gis ci pencum ndaw réew mi honorable ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoog askan wi ñuy seetaan. waaw maa ngi lay fay di nuyu mbooleem ñoo xam ñoo ngi seetaan ci télévision bi économie bu am solo bi. Mhm. di retouffé rek man maay représentant peuple bi ci assemblée nationale. maay président euh, comité électoral départemental coalition Idy 2019 maay boo bokk gis-gis département Mbacké nekk député assemblée nationale représentant fi peuple bi nekk tamit vice président commissaire loi assemblée nationale. bul gannaaw loolu gis nañu sa sortie yi nga xamante ne moom nga mujjee def ci budget 2020 bi bu ministère des finances nga ne doo nangu voté budget bi année lan moo ko waral. waaw xam nga li ko waral dafa bari ndax tey ji dafa am lu ñu tënk muy ay sart ak ay loi man mënu bokk si loi jiite maanaam yor fa bokk si commission bi nga xamante ni mooy yor mbirum loi ci assemblée ba pire ba pare de violer loi ndax loi règlement dafay wax ni moo war a jiitu loi initiale bi tey bala ñu indi loi de finance bi loi règlement moo war a njëkk a ñëw pour wan na kat yow da nga war a am cutis ensemble jox na la cutis boo xamante ni li nga jàll woon bés si bii jàll nin la ko woteeloo woon jaar na yoon kon rafetlu nañ ko kon am nga sañ-sañ ka continuer beneen bis bi mais bis boobu noonu ñu wotee la ko pare après nga doog a ñëwaat nag indi boo xam ne dafay topp si bis bi ñu la woteel a indi loi de règlement bi moom la ñuy woote Sénégal moo tax que ma ko ni ma ko mën a wote aussi tamit gisaa naa si yoo xam du a wote ndax bu fekkente ni tey jii dañoo waxoon ni bis programme président Abdoulaye Wade 2011 mu def benn décret boo xam ne dafay wax ne léegi képp koo xamante ne ñu ngi lay nommé pour nga nekk maanaam jiite benn euh, programme da am expérience cinq ans pratique gu trois cent ba pare nga nekk RHA léegi yaakaar naa loolu lenn gënu ko mën a wér ndax bari na tey Sénégal tardé gu mu tardé bokk na si mooy ñi ñuy jox responsable ay ndombay tànk politique tax ñu leen ko jox mais du xam-xam kon bu fekkente ni tey indi nañ décret boo xam ne dafay sensé loolu. indi loi boo xam day sans décret bi man yaakaar naa même bu dee indi loi bi loi bi war na mën a prévenir lu baax li nga xamante ne moo amoon ci décret boobu noonu pour que ñu conserver ko pour que Sénégal mën a jëm kanam mais barina tey jii ñu ŋànk ay euh, responsable nekk ay DAS wala ay SAS yoo xam ne nekkuñu RHA amuñu xam-xam politique lan la def nekkoon fenn ba pare après voilà ñu ñëw jékki-jékki jël leen teg leen foofu kooku Sénégal lu dox. loolu moo war a tey ji lu bare bare bloqué ndax ña ko yore amuñu expérience boobu noonu loolu moo tax wotiwuma loi bi wotiwuma ko ndax li tax wotiwuma ko aussi ni xaw ma ko mënu ma wotu loo xamante ni tamit jàpp naa bi ko watee responsable doon euh, may yor benn àq boobu loolu lu ko def quoi est-ce que clientélisme politique boobu ngay wax noonu ñoo xam ne amuñu compétence bi ñu jox leen ko est-ce que yéen en tant que député nga xam ne yéen a fi toogal population bi est-ce que taxaw ngeen def cri du taxaw biir assemblée wax ko yuuxu ko ba ñëpp dégg ko est-ce que def ngeen loolu. waaw xam nga euh, assemblée yow ku ne xam nga ni muy doxee euh, ñun suñu rôle la ñuy dox ñeneen ñi seen rôle ñoom. peut-être mooy député Macky Sall ña loo xam ne peuple bi ay jafe-jafe la si ñoom ñun doon ko porter au niveau Assemblée nationale surtout que département Mbacké ba ma jógee particulièrement à Touba ndax bu ma nekkee député Touba moo tax ma nekk député man dañ ma élu su départemental ma bi may gagné dañ ma kidnappé woon téye ma si ci kaso bi pour que ma bañ a ñëw kon Touba gi ma fal ba ma ñëw nag lépp lu mu man dinaa jaay sama bakkan ka ba Touba gis boppam ci li nga xam moom doxale ci réew mi te yaakaar naa ni am na ay changement yu bare bare yoo xamante ni fi mu doon gis nañ ko mooy ay procès yoo xamante ni ñu ngi ko yóbbu Touba ak ay accords yoo xamante am na ci bépp côté boo xam ne ñu koy mën a def c'est-à-dire nag waaye suñu xeex ensemble am na lu bare bare ko ko woon wala daawuñu dégg baat Touba si ensemble te léegi loolu lañ na kon loolu ko desandi parce que dégg nañ la soxla conseil départemental bu Mbacké bëgg a nekk en même temps maire ana nga ñuy leeral ci loolu. li tax ma wax ko mooy man si conseil département laa bokk man maa yoru commission habitat domaniale bu département bi mm-hmm. mais conseil département dafa doxul ndax yaakaar naa ne ñun ñi nga xam ñoo fa nekk ñaar yoon la def session si at bi am nañ bis trois cent et quelques millions amul benn réaction boo xam def nañ ici ku fekkente ni tey jii loolu lépp seet nga ko te xam ne département Mbacké bokk na département yi ëpp solo ci réew mi yaakaar naa ni war na am koo xamante ni dafay nekk actif jege jege peuple bi ba pare ñàkk am expérience boo xamante ni mën na dem wuti ay coopération pour que Mbacké mën a soqali ko loolu moo tax ma jël engagement ni dinaa samp sama ndënd

amul tamit mat gi ba pare ñaareel bi amul benn capacité pour yor commune Touba sëriñ bee ko tànn teg ko fa mais bu doon carte rek ku ne xam na ne du woote du maam du ñu ko fal ndax bi ñu defee listam mu nekk liste APR man maa lancé woon appel ni na ñëpp wote bulletin blanc bi bulletin blanc ba mu wote woon tey moo gagné Touba bu dañuy wax rek kon nag jàpp ne loolu lépp ay waxtaan lay doon ndax Touba fi mu toll nii yaakaar naa war nañu xoolaat si yan anam ak yan tànk la ñuy dénkaane commune bi pour commune mën a jëm kanam mais commune boo xam ne mi ngi mel ne moo ko commune rurale ñoo yem kooku yaakaar naa il faut tamit ñu changé si si doxalin ndax dañu ci liggéey bi mu engagé pour Touba ñu jàppale ko si ndax yaakaar tamit responsable yi nga ko a jox jox ko ndax ki nga xam mooy dirigeant bi dafa nekk si ñoom yaakaar yu yëpp tamit war na ay partenaires yoo xam ne amoon naa ko au niveau de Sine nga xamante ni tey mbalit ne ñoo fa moom la fa sumboon te marché ngi taxaw ay marché ngiraneen ay marché jannatu benn marché moo fa nekk marché Ocass la fa si ñëw ñii ñoo fa def amul benn effort boo xamante benn effort boo def na fa kon ñun jàpp naa ne Touba dafa war a jël indépendance am wax sëriñ bi sëriñ bi si bopp xam ni Touba moom moo ko moom ku ko neex la fay def mais kem fay def na am xam-xam boo xamante ne dana mën liggéeyal Touba pour accompagner sëriñ bi ci bëgg-bëggam. lan moo taxawal marché yooyu est-ce que maire bi moo amul compétence am nga solution dafa am loo xamante ni maire bi la am loo xamante ni état la am loo xamante ni bailleur lay doon. cest à nit na boo xamul loolu loo koy mën a xàjjale day am problème ndax aussi mënoon ni sax sooy da ngay dem di fay fayu ko ñoo xamante ni ñoo investir seen bopp def fa seen alal tey marché bi taxaw man bu nu ma ko joxoon rek mën naa génn un milliard pour àggale marché boobu noonu te état pare na pour àggale ko mais kan si fan lay jaar pour àggale loolu noonu maire bi tëlu ko te population bu far liggéey lu mat ñaari junni nit tey waroon fa am ay cantine ay xëy.

man Touba laa dëkk fii dama fi liggéey ensemble national laay liggéey chaque weekend maa ngi Touba mais après foofu laa am sama base nit ki nag fa muy liggéey nga xamante ne maa taan ma assemblée mais mënu ma jóge a cumuler bu ñu la ko joxee nga nekk foofu di nekk fii est di nga mën a def cumul bi. loolu loi terewu ko mu nekk député nekk maanaam conseil département loi terewu ko ndax am nañu tey ñu ko nekk loi li muy tere mooy nga jël ñetti fonction cumul leen ko mm-hmm. ñu gis ni récemment wax nga ci problème hôtel des députés ñu bëgg nga leeraloon ñu ci nga ne dafa nekk location. man 90 laa fa tàmbalee dem sama papa nekkoon député yor chambre 15 ma fay dem boobu ay classe Abdou Mbow yow ni ay boole yoo ñu ngi jàng nekkoon ci Mbaye Sakh Diop boobu ñoom ci Mbaye Sakh Diop la nekkoon Mbaye Sakh Diop joxoon leen seen chambre numéro 16 comme xam nga yàgg naa xam li xew foofu noonu mais hôtel député tey kenn bëggu fa dëkk ndax li tax mooy nan ko yore baaxul amul session baax bi man. dama defe ni lépp lu ñuy defoo noonu war nañ ko laaj député yi waxtaan seeg ñoom ma gis ni am na benn restaurant boo xamante ni hôtel député député yi ñoo ko moomoon restaurant boobu noonu pour député yi nga xamante ñoo nekk te mënuñu génn lekk di jënd lekk ñoom la ko ubbiloon mais kon buñu gisee tey benn nit seere ko ubbi restaurant bi te tàgguwuñu ba pare dagg beneen bunt boo xamante dafa féete ak fi nga xamante ne mooy ci kaw tali bi te loolu jaaruwul ndax insécurité la te xamul ko jox restaurant bi pour man dafa luyee restaurant bi voilà te loolu jaaruwul quoi. léegi député yi waxuñu ci dara. mais député APR lañ bokk. bu fekkente ne APR seere di hôtel bi euh, waa APR lan si mën a man maa si wax ko ñëw te man sax ma dem hôtel bi lu si bari. yeneen nga xam ne bokkuñu APR waxuñu ci dara. xam nga loolu ñorul leen ndax tax ñoo xëy na peut-être duñ si euh, lu muy def lu nekk si lu ko neex lay def cest à nag nit ki moom yomb naa muñal. léegi est-ce que ngeen fa war a toog di xaar lu ko neex mu def kenn du ci wax wala lan ngeen def. mais yow boo ko waxee lan nga ko mënal moom lañu jox hôtel bi moom lañ jox maanaam mu nekk questeur léegi yow da ngay wax naan ko rek Moustapha Niass dindil kii wala ñun député ëpp majorité ñoom ñoo ko wote pour mu nekk loolu mais mënoos dara ñun luñ man mooy en tant que opposition représentant lu ñu gis lu jaaruwut ñu dénoncé ko ñun loolu mooy suñu rôle ndax assemblée nationale 2017 dañoo wax askan yu leen fal leen ñu bu leen jox Macky Sall majorité wax ba ñu ko joxee dana indi ay loi yoo xamante ne du arrange peuple bi te su boobaa du baax si yéen mais askan yu déggaluñu comme déggaluñu nag ñoom wateel nañ ko mais nañ ko assumer seen responsable man li ma mën laay def bu ma toogee jàpp sama bopp voilà. ñu gis ne lafa fa jaarul yoon moom bari na parce que gis nañu assemblée douzième législature lañ doon jooy ñu gis ni treizième législature moo gën a pire ay saaganteeg lu nekk ñoo fa xam moo am ci biir assemblée bi te kenn du wax ñu gis ni ñu bëgg xam yow lan mooy sa problème réellement yow ak député Malaw Sow. bon assemblée nationale moom la fa jaarul yoon bari na ndax euh, président bi si boppam li muy def jaarul yoon assemblée nationale xamuñu bitse bi xamuñu maanaam lan nan lay doxalee bitse am na ay commission yu nekk ensemble yoo xam ne musu daje comptable musu daje commission de délégation musu daje voilà yooyu yëpp kenn mun a nekk ensemble national ci numéro fixe yi jot jot kenn mooy ñun dañoo nekk rupture ak population bi te loolu moo ko waral ñàkk session ba ñaareel bu fekkente ne tey ña fay liggéey foofu mu nga xamante ay ay ay ay ay fonctionnaire la nekk ensemble national avantage yi am yëpp jamono yi Pape nekk yëpp dañ ko ñàkk te ki ko yore nii tey kenn xamul lu mu ko yore mais ñun yoon def na ñu wax li ñu war a wax. bu dee nag en partant keneen ki nga man kooku sax yow xaw ma ne la ndax man koy dégg rek mu naan man député Macky Sall la man koo xam ne député Macky Sall la dama ko xam ne député la dama koy séen nii rek xaw ma sax turam dëgg dëgg dëgg vraiment. léegi mu jàppoon ne am ngeen benn problème ak ni muy saaga booy wax muy def lu ko neex yëpp jàppoon ne yow. da ngeen xam nga kenn ku nekk ni la yare kenn ku nekk ni la yare te day am ñoo xamante ni dañoo bañ Sëñ tubaa ngir ñun dafa am assemblée ñoo xamante ni ñun bañu ñu mais Sëñ Tuubaa leen bañ buñ santee Mbàkke di wax day leen di metti bu ma nee jërëjëf Sëriñ Tuubaa ensemble da leen di metti kooku nag yàlla mënus kenn mënus dara ku mu neex ku mu neexul toppal fële. dañuy desandi ci actualité ñu gis ne nii fan yi yëpp euh, ñu ngi biir APR au sein de l'APR sax ku ci mel ni Moustapha Diakhaté dàq nañ ko ani lan moo ci sa xalaat par rapport ak loolu. waaw li sama xalaat mooy dama koy ñaawlu Moustapha Diakhaté taalibi Sëriñ Tuubaa la ni ko Moustapha Sy la doone te ba muy métti ñoom Macky Sall ñu ànd mais nit da nga war a am ngor gis nga Macky Sall bu doon xool démb ay nit démb dañ leen téye tey ana Ndiaye ana Aliou Badara Cissé ana Moustapha Cissé Lo ana Moustapha Diakhaté man nga ko lim ñi àndoon ak moom ñëpp war na leen ginnaaw wut ñeneen ñu bees te loolu du lu baax Macky na xoolaat boppam xoolaat entourage ñi koy jege nii jege ko nii dañ koy jay gis nga nit ku fonkul kóllëre yow ma xam daan la ko laaj tey tamit jàpp naa ni war naa xoolaat boppam baax ndax am na yoo xam ne du yëfi gor. ñu gis nañu honorable Bara Dolly assemblée lu kenn sañul wax moom moo koy wax gars yi ñu ngi naan ci suuf que ni ni muy yuuxoo assemblée su génnee noonu lay dem gisee gars yi nga xam ne moom la doon kii wala da leen di gis nànk pat nànk ci suuf ani nga ne loolu sama jikko Sénégal ñëpp ñoo ko bokk man ni may wax ensemble temps noonu laay wax fu nekk man dama am indépendant économiquement man faaliwu ma dara namu ma dara bu fi Macky Sall doon def cinquante ans weer wu nekk mën naa am fukki million lu may lu may deyee Macky Sall lu may deyee gars yooyu noonu sëñ Tuubaa moo ma taral te sama teraanga du jeex mais am na ñoo xam ne samay xarit la Macky Sall sama xarit la fii nga toog dafi doon toog day ñëw fii sama kër ñu ngi déggante mais teegul Sénégal ni mu ko yore baaxul président Abdoulaye sama bàyyi la mais Pape Diop mooy sama patron si politique si bokk gis-gis laa bokk mais y a problème ñi nekk tey jii si wetu Macky Sall nekk ay ministre yu bari ba ñu maanaam ñoom ñoom bokk noonu nekkoon Abdoulaye Wade kooku lan laay dem si ñoom di wut si ñoom loolu mënta am am naa sañ-sañ nag bu nekk ministre de la République bu ma gisee koo xamante dafa am soxla ci ministre la République te man ko faj ma jël ko yóbbu ko si ministre bi ni ko kii kat si peuple bi la bokk te li leen woote bés bi ci la bokk waxal mu dëgg mu wax mu dégg bu ko mënee def ko bu ko mënoon dem mais nan xool man yan ministre laay def ak yan mu. ok ñu ngi gis ni ni xeex bi fi gën a récent léegi xeex bi metti muy prix wu aussi prix wu électricité bi ñu gis na ni état bi delloo ci ginnaaw boobu ba tey. xam nga peuple bi dañoo naqaree xeexal da xeex ba mu jaagee da ngay da ngay da ngay da ndax. dañu taxaw may leen bu leen wotelee Macky Sall ci élection 2019 yi bu gañee réew mi dañu yokk courant bi dañu yokk pétrole essence dañu yokk gasoil dañu yokk diw dana yokk dund gi ceeb bi sax dafa yokk waxoon naa leen ko mais ba ma koy wax dama xam bon lu lu wér ni après élection dana ko def ndax béykat si bopp ñoo waxoon ni ko il faut nga yokk ko ndax nga mën a bori moo leen nan ma muñal ba élection yi jàll dinaa ko def man xamoon naa loolu te ñu peuple bi xamuñu woon loolu mais comme wax naa leen dégguñu ma. falan Macky Sall bu yokkee responsable bi kat peuple bi la man sama yoon newu si peuple bi nga xamante ñoo ko fal bu ñu ko yokkee ñu génn si mbedd yi ne ko eh courant bi dafa yokk tey jii ceeb bi dafa yokk diw gi dafa yokk essence bi dafa yokk mais Macky dafa doy mais pourquoi amul ñu ko wax. ñun ñoo bëgg ñun leen koy waxal di wàcc si mbedd yi man du ma wàccal kenn si mbedd du ma ko def man sëñ Tuubaa rek ma jaral wàcc si mbedd ak yonent bi mais li am solo mooy li ma war a kaas na ko kaas mais li nga xamante ni nag ñoom ñoom lan war a def moom peuple bi nañu génn kaasa seen bopp yenn yi nga xamante ni am na te jaaruwul ndax tey responsable ñoom la wax dëgg yàlla ñoom la ndax ñoo ko wateel buñ ko watalu toon du fi toogaat bay mën a yokk leneen li ndax mënuma concevoir réew moo xamante dafa am ay ber yoo xamante ni ñu ngi fay 71 milliards la ñuy fay par mois dette publique di fay quarante cinq milliards salaire mais est-ce que attan nañ ko attan nañ ko te li ñu ko yóbbu yëpp ay procès grand ay grand procès yi nii tudd ay TER BRT centre Abdou Diouf ay yooyu du dara président Abdoulaye Wade waxtaan mu ni ma président Macky Sall bi mu diggee réew mi man mi def aéroport ba pare war na xalaat ni man am naa xalaat boo xam ne dinaa wut ay nit dinaa wut lu yóbbu nit ñi foofa mais ñàkk xam-xam moo tax nga fekk aéroport waxtaanoo ki def aéroport ni ko moom projet bi nga xalaatoon pour mu ñëw fii ban projet la mu tëb tëb génn ab terre mille milliards te président Abdoulaye Wade projet moo nekkoon dafa waroon wut benn train boo xam ne dafay jógee maanaam aéroport ñëw ba Pikine mu def grande grande gare boo xamante ni dafay am métro yu dugg si biir dëkk bi embouteillage si wàññi ko mille milliards yooyu noonu mën nañ si am grande euh, train bi ba pare am ay métro yu dugg si biir dëkk bi si mille milliards ba pare ñu jël marché bi jox ko Malaisie mais ku ne xam na ne Macky Sall moo ko jël jox ko français yi français ñoo gën a seer ba pare ñoo gën a bonle mais comme moom français yi lu neex français yi neex na ko loolu moo tax mu def action boobu noonu ñaareel bi lépp loo xam Abdoulaye Wade nangu woon na ko fi muy camp yeeg lu mën di doon joxoon ko Sénégal yi mu nanguwaat ko delloo ko français yi France li ko gënoon a naqari bokk na si drapeau bi nga xam ne président Abdoulaye daf ko wàcce woon yëkkati drapeau Sénégal Macky Sall ñëw ñu wax ko mun yëfi xale la xam nga yooyu dafa nekk lu garaaw loo xamante ni tey dafa saaga peuple bi man jàpp naa ni yu mel noonu rek jàpp naa ni français yi ñu tax ñu gën a xëy Ablaye Wade sax yooyu bokk na si te Sénégal Ablaye Wade moom Sénégal moo ko gën a lépp kon il faut que ñu jël suñuy matuwaay xam ni en tout cas rëccu nañ góor gi li ñu fi doon jógee ñun ñii di ay doomam lan comme ni Macky doon doomam mais doomam bu ko déggulut boo ko doomam bi ko déggal en tout cas ñu ngi koy ñaan yàlla mu yàgg fi te wér mais li am solo daal mooy combat bi na continuer jusqu'à 2024 ba ñu fa àgg peut-être que a xool ko fi ndax moom du nekk candidat ndax lu waa constitution mayu ko. kon mën nañ tënk ni Macky dafa wax loo pour mu yokku kii. prix électricité beeg denrée yi ñoo ko wax loo ndax lu tax mooy dafa am yoo xamante ni boo ko xasee ah bailleurs yi si moom xaalis wala maanaam nga yoro leen danaa la léegi xam na yow mënoo ñoo fay si condition bi da yokk sa lii pour nga mën ñoo fay ndax ñoo suñu xaalis lañ soxla loolu la kon sénégalais yi ñoo ko teg seen bopp parce que avertir woon nga leen. ah mais ñoo ko teg seen bopp ndax avertir waxoon naa leen ko waxoon naa leen ko voilà. léegi ñu gis ni benn tawat bu metti dugg na ci Chine doomu sénégalais yi ñu ngi foofu depuis lors seen parents yi ñu ngi jooytu pour ñu indi leen mais état bi ba tey ci wax la toll defagul benn jéego an lan moo si sa xalaat muy coronavirus bi. waaw xam nga coronavirus moom feebar la comme feebar yëpp rek bu wax mooy abola amoon na na mais état seet mooy fi may njëkk mooy damay bokk ak soldat ak ñi nga xamante ne ñoo nekk Chine. Mm-hmm. ak parent d'élèves yi nga xamante ne ñoo fa nekk mais dañu leen xam ni aussi du ay élèves rek ñoo fa nekk man mi wax yow am na sama taalibe yu nekk foofu noonu di jaay mais ñoom seeni parent dañoo jutiwut di jooy comme ni parents d'élèves yi jooy étudiants yi jooyee te aussi président bu ne aw may moyee man gawma loolu ndax Sénégal am na mooy yu mën a jëlee ñooñu gis nga fukki nit yi nekk Sénégal ñoo xamante ni ay kilifa lañ kenn ku nekk mën a joxe 500 millions ñu jëli leen. avion bi nga xam ne ñoo ko Air Sénégal te bu bëgg a tukki tukki si ñun suñu avion ñoo ko moom mënoon nañu jëli te lañ see dem motu cent millions kon jàpp na loolu ay wax la yoo xamante ni du wax ju rafet li ma mën a jàpp daal mooy buñ wax ne rek fukki nit ak ñett ñoo fa nekk la nekk ëpp na loolu buñ jàpp ne dañ leen wala jëw ñoom dong bàyyi fa ñu fa des d'accord ma ci loolu te aussi fukki nit ak ñett du leen jënde fukki millions ak ñett aussi te Sénégal amul ay matuwaay yu mu fajee fukki millions nit ak ñett kon ña nekk. na leen aar dalal seen xel jige leen ministre bi nee na jël nañ engagement chaque ñaari waxtu yu nekk mu ngi leen di woo téléphone groupe na leen fenn lu ñu soxla mi ngi leen koy defal kooku ministre bi wax na loolu lu ma lu rafetlu loolu en tout cas li ñu simantek daal mooy peuple bi yëpp nañu maa soldaate ànd ak ñoom ci loolu nga xamante ni mooy jafe-jafe yi am ci Sénégal yi nekk fu mën di doon te feebar am fa ndax États-Unis am na feebar feneen am na feebar feneen kon jàpp naa ni feebar moom fu nekk la am ndax ni sida bi ne la fee yenn feebar yi amee te bu leen fàtt ne aussi dafa toll foo xamante ne guerre la boo xamante ne guerre mondiale guerre commerce la fi leen toll mooy communication Chine ni ngi xëccoog États-Unis ci commerce bi jamono yu ñu toll nii ci la Chine di def li mu war def yëpp ci économiquement yooyu yëpp ay guerre la yoo xamante ñun suñu yoon wërsëg te seen mooy suñu premier partenaire boo xamante ni moo ñu ëppal solo États-Unis suñ coopération yi kon jàpp naa ni il faut que ñu bokk ak ñoom soldat ak ñoom jéem a xool nu lay mën a jàppalee ñu jàpp leen ña fa nekk suñu doom tam ñu jéem a xool nu leen mën a tege si conditions yu baax teg leen bu leen mën a war a jëli man par exemple moo joxee ndigal ma jëli leen buñ la joxee ndigal mën nga leen jëli est-ce que li ñu leen di def noonu dal na xel ministre bi li mu wax noonu dal na xel ñu bàyyi le foofu ka nga xamante ne fii instant bi fi ñu toll nii ñoom amaguñu virus bi est-ce que gënul woon ñu rawale leen indi leen vu ko amuñu virus bi li mu wax dal na xel ndax ministre bi bon xam naa nit ku baax la te lu mu wax jàpp naa ni dëgg la est-ce que du danga koy faral non xaw ma ko ba koy faral Abdoulaye Diouf Sarr xam naa ko nii rek man xaw ma ba koy faral man du ma faral kenn ku du sama bopp man sama bopp ma gënal ñëpp li am solo mooy jàpp naa ni li ne si man nekk na si moom nee na mi ngi déggante par ñaari waxtu yu nekk nee na mi ngi leen di yónnee dalal na xelu parents parent yi fa nekk recevoir na leen wax naa ñoom lan laa si mën a waxaat benn bis toppaat mooy nee na dalagu leen mais feebar mën na dal nga am fukki fan ak ñeent doo ko yëg ni dal na la fukki fan ak ñeent bu la dalee fukki fan ak ñeent nga doog yëg ni feebar bi dal na la ñu doog ko xam si yow kon bu ñu wax ni dalagul kenn li am daal mooy na leen aar foofu noonu. jëm leen xool fu leen dugal jëm leen def maanaam seen ravitaillement dara bañ a manqué ñu dalal seen xel psychologiquement ñu ànd ak ñoom ndax am fukk ak juróom xamante ni tey jii ñoo ñoo yor préoccupation étudiants ya fa nekk kon loolu rafetlu nan ko aussi ndax ñun bokkuñoo ak ñoom bokkuma ak ñoom parti mais bu defaloo lu baax dinaa ne rafetlu naa lii ah loolu rek. léegi ñu gis ne nii sa mentor comme ni koy waxee ci politique muy Pape Diop an yan relation ngeen entretenir fi mu toll nii jamono bi ñu toll nii. Pape Diop man ak ndey lan sama xarit la sama mag la politique boolewuñu Pape Diop maa nekkoon conseil bi mu nekk Sénat ma ànd ak moom cinq ans ñu wàcc ma continuer ànd ak moom ndax ngor Pape Diop ba muy metti maa yoroon parti bi Touba sama diggantoon dafa jiitu parti sama digganteek moom tamit sëñ Touba moo ko lal li ma jàppe doomu sëriñ ma jàppe ko sama mag jàppe ko taalibe mu njëkk sama njiit si parti bi lépp lu may dogal wala lu may def assemblée dinaa ko si laaj xalaat jël na ma def ma si liste man nekk député listam laa duggee conseil départemental xeex naa ba nekk vice président commissaire loi assemblée nationale nekk naa président conseil administration Assane Asalem nekk conseil administration poste nekk vice président commission des habitats domanial bu département Mbacké kooku lan la ma dese. parce que dañ dégg ne neexootu leen. kenn gisatul sax nga prononcé wu ci affaire bu Pape Diop ñu di faire fort ci wéyu béykat yi neexoo wootu leen moo tax ñu laaj. Pape Diop démb lan nga démb lan nga ci gisee moi c'est initié man maa initié sax maanaam tournée bi xale yi war a def anneau national ba pare yëkkat saa mooy jox jox leen oto ñu dem mbokk secrétariat national secrétaire exécutif mbokk comité directeur <laughs> kooku waaye ne nit ñi ñooy wax rek Pape bu fekkoon ni kenn lay dese man lay doon ci parti bi. kon doo ko mos a wan ginnaaw. Same man dama gore yow tamit. li nekkoon sama papa bi ma dëgg Ablaye Wade moo ne si man bu mu ko doon ginnaaw neexoon mu <laughs> naqaree mën ko ginnaaw. léegi a dugg ci wàllu agriculture xam na la trop ana lan nga ñuy wax. waaw xam nga mbiru agriculture mooy li sama collègue député Moussa Faye su la waxoon rek laay wax mooy agriculture moom ki ko yor ba mënu ko ndax professeur Pape Ablaye Seck mi ko yoroon jàpp naa ne xam-xam bu fekkoon moo fay tax a nekk rek du fa jóge ndax mbay mi ni ñu wax ni moom moom lañ am amul du dëgg ñaareel bi mooy daaw dafa am lu métti lu fi am mooy Chinois yi doon jënd gerte dañoo ñëwutoon toog na ñaari at yoo xam ne ñëwuñu di dem ay Guinée ki Mali ak Mauritanie ak ak ak Gambie Chinois yi ñu waale ñu ñëw pour jënd gerte gi. am benn décret boo xam président la République moo ko defoon maître Abdoulaye Wade ni Chinois yi am nañ sañ-sañ ñëw jënd gerte gi yóbbu ndax bu ko defee gerte gi gën a am valeur ñun nag ba le 31 bi jàll ñu génne benn arrêté boo xam ministre moo ko bind ni arrêté nañ pour ñu dem jëli gerte gi ñu bañ a jënd yóbbatu gerte gi li ko waral yëpp mooy ñoom ñi war a jënd gerte gi amuñu xaalis bi ñu ko jëndee Sinoa yi jënd gerte gi ni ñu koy jëndee ñoom moo ëpp moom poids bi ñu ko jëndee comme yàlla dogal na ñoom xam na ni mënuñu am li ñu mën mooy baarañee ngir que baykat yi jaaxle pour que jaay muy lu naqari lu metti aussi te jamono baykat yi mu sonne dañ leen war a accompagner jàppale leen mais wuruñu maanaam di leen bundu xataal lépp loo xam bëgg nañu ko def pour yokk seen seen seen koom ñu aaye leen ci loolu kon loolu lu wax naa ko ministre bi loolu lu ñaaw la tey dañ leen waroon bàyyi ñu dem jaay te président de la république laa si appel pour sax Turquie war a ñëw pour jënd si gerte kon yaakaar naa ni da wedd sax président la république ndax yow bu fekkente da nga ne léegi sama gerte bëgg naa sax yeneen ñëw muy waa Turquie ñëw dugalaat seen loxo pour que baykat yi mën a gis seen bopp ci loolu yow nga nekk ministre de la république nga ne li président wax dégguma ko ñi fi nekkoon gis sax dama leen di dàq yaakaar naa loolu respect ñàkk respecté peuple bi la ñàkk respecté président de la république en tout léegi information bi ma lay wax mooy bi nga xamante ne ministre canadien bi nga fii ñëw ñu ne borom ñaari tur yi la ñu gis ni Jamra génn na ci wax ci te mu war a ñëw Sénégal en tant que député lan moo ci sa gis-gis. li ma siy xam mooy wax dëgg yàlla leeru ma ma wax sama diggante àqu man xaw ma sax ñooñu xaw ma borom ñaari tur xaw ma li ma xam daal mooy moom dégg naa day ñëw ñun am na loxo xam ne ñoo ko bañ suñu bopp bu ñëwee nañ ko déglu. président moomu ñu bu bëggee def loo xamante ni arrangé wu réew mi ñu taxaw ni ko déedéet dootu ko mu laal ci mbirum diine yoon nag def na moom mu alerté ndax lu am solo la waaye nag comme moom wax na ni du am wax na nañu du ko fi def mais ñi ngi xaar ba xam ni mu wax ak contraire na lay mën a demee mais en tout cas loolu moom da yàlla xaw ma si lu bari. wax na ni du am mais nangu da mu dugg ci dëkk bi est loolu xel nangu na ko. yow mas nga gis. mas nga ko gis day dañ ko annoncé ñëw. waaw non mais am na sañ-sañ dëgg fii. Mm. non Anta mais mënu ko tëj mënu tëj ni maanaam benn président benn président de la République mënul ñàkk ñëw fii benn premier ministre mënut a ñàkk ñëw fii surtout ministre boo xamante ne premier ministre boo xamante ni euh, bokk na si puissant dans le monde ñooñu dañuy dañ leen soxla yow mi xaw ma loo doon fi mu toll nii de. waaw mais man xam naa li nga. voilà man xaw ma loo doon fi mu toll nii léegi nag loolu moo tax nit ki dangay ngay maanu si loo xamante ni xamuloo ko mm-hmm. maanu si gëm yàlla bokk léegi ñu lay laaj lan nga xalaat ci rapport Cour des comptes bi ak Macky Sall mu bëgg a créé waat beneen kii boo similaire ak rapport yi. Ah, loolu mooy caaxaan la affaire ay affaire commission moom bu ko Macky Sall waxee rek nan na nan na jëf fi caaxaan Cour des comptes génn rapport ñun rapport bi jot nañ si assemblée xam na ne am na ay luubal mais mun mun ñu topp kenn léegi ñoom ñi nga xam ñoom ñoo mën a topp nañ jébbal rapport bi yoon yoon maanaam ubbi ay enquête xool ñi nga xam ñoom lañ tuumaal est-ce que def nda aussi tamit wax maanaam euh, euh, dafay def ni yaakaar naa ni loolu war na mën a tax ni tey jii lii am nii moom mu moom mu ragg boppam wane ni kan maanaam doomu porté si waxoon na ko ñi ngi tudd ay nit ñi ngi leen di tuumaal yoon mi ngi fi mais na jébbal rapport bi yoon bu fekkee jébbal na ko yoon te yoon mën a wax ne léegi maam ñii ñoo def wala ñii defuñu ñun Sénégal yi nga xamante ni ñoo jël suñu lépp ni yoon bu ngeen àttee d'accord si malgré que léeg-léeg du ñu neex mais subaa ñoo xam ne la yoon mais nanguwuma nag ay nit maanaam liggéey ay magistrat jël seen temps bi yëpp jël mooy yëpp def ko si tey maanaam yow ngay taxawaat benn commission kooku da leen di banque respect sax quoi man vraiment en tout cas kul kon joxe na am na ñoom dem tuuma ñooñu ngi wedd si télé ak seet kii mais si yoon war def na ko def. Ah, peuple bi ñu xamoon voté 100 pour cent Macky parce que ah, amul opposition. voté nañ ko 100 pour cent ndax 85 pour cent lañ ko kooku. <laughs> <laughs> mais même bu fekkente ne man dama gisoon ne ni député yu ñu soxla yi Sénégal soxla même bu fekkente ne ne benn nit la ñee dañ lay gagné mais nga taxaw yuuxu fépp ne ànduma ci nii Sénégal ay génn yow assemblée kan nga fa gis muy xeex ko doon man ah assemblée waaw xeex boobu non waxuma xeex boobu xeexu jamanteeg yooyu noonu mais taxaw yow kan nga fa gis muy muy taxaw di gaasal askan wi ku doon man voilà léegi ko mën ngeen fa gis sama dama faa néew doole li ma wax maa ngi koy def li ma man maa ngi koy def mais nag mënu ma ne far force léegi li ma wax nii da ngeen koy def far force mënu ma lool man fi ma yooyee déposé naa fukki enquête parlementaire Assemblée nationale affaire Petrotim déposé na enquête parlementaire port déposé na enquête parlementaire Prodac déposé na enquête parlementaire ba ci hôpital Touba bi déposé na enquête parlementaire mañ naa ko bu fukki rapport ak fukki enquête ak nanga mais est-ce que yow gis nga benn yoon bi fi Macky Sall nekkee wala juróom-ñaari at opposition bi déposé enquête parlementaire ñu ubbi ko amul lan mooy nekk sa dernier mot. bon sama dernier mooy euh, sant yàlla sant leen aussi ndax xam nga aussi bu ngeen may opportunité ma wax yenn yi mu war a wax yëpp mu ma lu dul rafetlu ko di leen ñaan yàlla seen télé bi dem ba nekk télé boo xamante ni ñëpp duñ koy kii ngeen am tey ay seen yu bëree bëri ñaan aussi ñaanal seen directeur bi di xam ni émission bi neex na mais gàtt na. ñi ngi remercier honorable député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké di remercier téléspectateurs yu Equivox TV yi nga xamante ne ñooy ñi seetaan di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen euh, invité merci beaucoup. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.